ko moome mam jaara ay gi moo ko moome mam jaara ay gi moo ko moome mam jaara kenn duutu moome bul di mer di rumme mami soxna baale ay gi moo ko moome magalel soxna jaara magalel jaara moo ko moomee kenn duutu moomee bur di mer di rummee baale maam jaara jaara di rummee ci leen bu yegg seen daw di ko wuy ji mam jaara jar na wuy ji day jigéen di garme poroxaan bu yegg seen baale mam jaara day jigéen di garme mami soxna baali waada mësa jaar Bali Muntaxa soxna Bali Muntaxa samaam kenn du ko maame soxna jaara jaara soxna jaara jaara ma soxna jaara jaara ma bu soxla jaara jaaraama jaara jaaraama añ nañ te sur nañu baay soxna jaara jaaraama jaara jaaraama añ nañ te sur nañu baay soxna jaara jaaraama jaara jaaraama añ nañ te sur nañu baay soxna te ñu taataan bu baax xam ne takkusaan ba tey noo ngi toog di xaar gan gu tedd ñu doon xaar moo yegg si muy soxna su yiw soxna su tedd jigéen ji yàlla baaxal soxna baali muntaka soxna baali seex sooyibu waaye borom fondation bu réy bi fondation soxna baali muntaka ndeyu daara yi ñoo ñëw waaye ndeyu dongo yi ñoo ñëw kii ñëw mooy ndeyu daara yi kii ñëw mooy ndeyu dongo yi soxna mun Muntaka soxna Baali sa dikk gii a neex nanu lool waaye sa dikk gii bég nañ ci lool waaye boo toogoon ba fajar danañ la xaar ndax yow mii yaay ndeyu dongo yi yaay ndeyu daara yi yow mii soxna Baali Multaxa yaay jëwrinu maam jaara ca poroxaan loola waral bi jàngkat yi di wax soxna jaara ñu ne yem leen ci soxna jaara rek ndax moom soxna jaara rek koy bégal soxna Baali nga yiw lool waaye soxna Baali nga baax lool waaye nga tedd lool bëgg lu baax te mën lu baax ku ne xam na ne soxna Baali sa jot bariwut ndax ki nga féeteel ak ki nga nekkal di ko liggéeyal mu Cheikh Mouhamadul Mountakha góor yàlla yal na fi yàgg lool ci ànd ak wér yow temps boo jox nit rek lu rëy la ci yoonu murit yow mi dikk bokk nga ci sa dikk bi su ko mënoon a def direct ci télé yépp da koy def su ko mënoon àddina sépp di yëg ni soxna Bale ngi waxtu wii ci tànt bi da koy def ndax lii nag dafa rëy ci moom mel na ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo toog ndax yow foo toog sëriñ bi yëg na ni waxtoo yaa fa toog fooy dem yëg na ni yaa fa dem yàlla yàlla guddal soo fan sa doom jii toog nag doy na sëkk sëriñ maam Cheikh mii waxtu wu ne day wax naan ba sëriñ xaadima ba waajuróom wa ñëwee daara yi sëriñ Soy bu daan fi doon doon jël kaset jóge Europe di filmer daara ja ak donga ya loolu nag ñoom bañ fa nekkee xamoon nañ ni sa waajuru baax wa borom liggéey bu barkeel ba ka am ngërëmal doomi sëriñ Tuubaa yépp waaye ka am ngërëmal ñaari doomi sëriñ Tuubaa yi jaar nag muy soxna màgget Gueye yàlla yàlla yokk yërmande kenn ak Cheikh Ibra Fall la bokk ndey ku bëgg Cheikh Ibra bëgg Cheikh Issa ku bëgg Cheikh Issa maa ngi ñaan daal quatre-vingt-neuf juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yàlla na ko dund euh, damay dama lay wax tuuti nag du li may wax nii du jaaxaate damay wér di la ñaan nga gudd fan de ndax lii nga defoon sëñ Tuubaa yaa ko njëkk def ci yoonu murid mbir nag bu dee mbir mu rëy ta baax nga ànd kook say doom yi baay di ko def te keneen mën ko ñi koy béree dana war a ñaan te koy def mu gudd fan sëñ Basse ñu wax ñëpp ñëw soxna Bally am wax nga ni nag sëñ soxna Bally ñëw barke alxuraan léegi laa jóge Tuubaa waxtu ak fukki minute ñett laa ko atom bés laa yor te yaa ma yónnee essence xoolal maa ko ni woo ma dën yore naa dara kat mu ma soixante quinze mille defal ci waxtaan bi ñëw saa bàjjen day ñëw moo tax bi yi ñëw ma ñëw mu naa ma da ngay a yàlla ci réew mi moo ci gën a na làqu moo ci dàq na alxuraan moo ko ci dàq na jàngale moo dàq yàlla yëpp koo gis mu fees Tuubaa te bajantuwul mokkal alxuraan tari ko bind ko sotti ko sant ko matt ko maas ko sëñ Sohaybu ko bu ma wër alxuraan dugg Tuubaa kër sëñ Sohaybu laa jëm bu ma wër ay rakka dugg Tuubaa kër sëñ Abdul Xaadir laa jëm jàmbar joo xam ne lu mu dóor mu daanu sëñ Abdul Xaadir borom xaal boo xam ni lu mu wax yàlla def ko sëñ Baara loo fayee yàlla wuy sëriñ sëriñ Fallu xam-xam sëñ Basiiru xel mu rëy ba mel ni wàllu yiw te du laal wàllu yoon sëñ Moodu kii sëñ Soy bu mel ni ko sëñ mun sëñ mun taxaa ko sëñ Bas di doomam kii li may wax li may wax nii daa leer de sëñ Soy boo ko meññi sëñ Muntaxa ko làq sëñ Basiru lay doomam bu taxawal fii ni sama dooma def lii malien yi sax bu ñëwee nañ ni kuy sa doom yaa bàyyi ma bokk benn bàyyi ak kii ak ñii kon boo ñëwee man Tuubaa laa jógee suba laa nara di ñëw sëñ Basama woo ni ma soxna bàyyi day ñëw fekk ñaanal na ma oto yàlla jox ma oto bu bees càq bari na ñoo xam ne dangay ngay gis ñuy dox ñu man seen bopp gannaaw yàlla moom mi moo tax mooy ndey sëti sëriñ Tuubaa yi moo leen di guddil di leen bëccëgal te yàlla rek tax bari na ñooy gis ñu leen di ràññee di leen xàmmee ci nit ñi gannaaw yàlla soxna su tedd si ya tax kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax nee na fu beeg nañ ci teewaay bi sëñ Mamoune duñu ñu guddal dañuy wax rek ni lii sëñ ji di wax dañ koy gën dëng bàjjen maa ngi lay siyaar ñu bëgg sëñ bi waxee démb ba tey amatuma jot loolu rek gis sa jëmm ju baax ji de xoolal lii rek te eh, dafa am aw nit boo leen gisee da bëgg yàlla ko su leen gisee da ngay kontaan li ne ci yow yàllaa ko def kenn mënu ci dara te it noonu mu ne ci man ñuy gars yi di wax rek noonu lay nekk ci ñu bëree bëri am na ko ma sëñ am na ko ko wax nit ñi kenn moomu lay Babacar si bu baax ma daan wax ku amul parfum dend la Cheikh Bass ñu ngi koy xel mu yóbbaale la lislaam benn buum la sama baay yàlla yàlla yokk leeram juruma man kese ñoo fa gën a ndaw ca laa bokk waaye xam naa ko ma soppoon la parce que daf ma daan tooñ ci ay xasida su ma sànn tëju ci këram kenn mënu ko génn man su ma ñëwee damay toog fële su ma toogee xam naa li may wax ba mu lan laa daan wax كلام قديم لا يمال سماه هذا كان قول وفعل ونية yàlla xam ne lii rek laa daan wax sama papa ju baax ja tij kon Mbàkke li ñu defal tey occasion bi ñu may ñu gis suñu bàjjen bu baax bi taman su ma koy wax bàjjen sama xol bi day nux nuxi màggal ñëw naa këram gaa yi xàmme woon ma ba ma xam rek ma génnaan ma ñibbiwaat ndànk dem ñëw kër sëñ bi màggal damay xuus di xuus defe naa sa kër laa laa jëkke kon man day bëgg naa te xam naa li ma bëggloo moo leen bëggloo yéen ñëpp maa ngi ñaan rek ngeen jéggalaat lii ma yàlla bindee noonu laa mel lii laa daan wax ba kër Serigne Touba gi nekk Chicago ma jëkk fa màggal bi ñu ko jëndee man la yàlla dogal ma def fa màggal ku mag 2018 te lii ma fay wax laay wax du caagi ni nit becc wala nit ki sama yëg-yëg ak sama cofeel ci li ma koy wax ci Xaadimul Moustapha loolu kese bëgg Serigne Touba ba gëmewuma ko defe naa Baye Fall si xam nga li wax sëñ Matar xam maa ngi jéggalu sax bu baax a baax mais l'islam bi fi nar a dajee samedi li fi xew sànq rek victoire l'islam sama waa ji kon maa ngi jégaluwaat ci wax ju bëri ñu baal ma. wala da nga nuyu soxna si waaye da nga koo war a wax tuuti ci maamam mu dégg. ok waaw jërëjëf. wal kawfu ma darabat unsan wala sakaran ma xadiman aba min xaybin walam yaala musafa مصطفى والكف ما دربت أنسا ولا ذكرا ما خادما أبى من خيب ولم ينم شيء وصف سيدنا محمد المتاع العرش والكرسي ما هزاروا dellu xool Dakar xool fu war xool borom Dakar xool ci ko sey te dellu xool sey yéen a ca booru yàlla laa wéy re moya sima ñaari bayt ko xaba xon na tuba li baax na baax na de yaa ko daan def de tayo te do defal defal defal ñaari bayt ko tuba li xam ni dang ko daan def mu neex defal rek defal defal defal yàlla eh! أقبل لعبد المريد صادق لهم بخدمة أبي أوديا قلبك على سعادة أموات يلا قلبك على تندب الأراد عليهم bi soxna soxna Baali dafa wax ni maanaam bu ñëwoon toog taxaw ci buntu baas bi nga xool ko mu xool la rek day doy sëkk ndax tubaab dane yaa des images kii parlent ndax teewaayam fii xam na ni teewaayu ku ne am na waaye xam na moom yëgal na boppam ni bosam bokk na ci yi la gënal Mbàkke nga bëgg ko lool te bëgg gi nga ko bëgg daa àgg ci kii kilifaam tey yaakaaram te te yilif leen yéen ñëpp muy mun taxaa Muntaxa noonu la ko xamee nga ëmbal ko yërmande ëmbal ko cofeel li tubaab naan amour maternel loolu moo dox sa digganteeg soxna Bali sa yërmande ci soxna Bali àgg na ñi ko jege da nga leen di woo sax naan leen ba xam lekk na te ngeen ko forcé ay garab yi nelaw mu nelaw bàjjan dafa sonn ñee leen nit ñi nañ ko may mu noppalu loolu ak cofeel dëgg ak jël nit ki def ko muy sa wuy jur mooy tax lu mel noonu am te yow képp ku la xam xam na da ngaa bëgg soxna Bali ku la xam-xam ne ni téye nga soxna baali képp ku bëgg soxna baali bu la gisee di wax lu baax da da koy yokk ngir xam ne loolu da da nga ko ca teral yooyu wii man daak di way léegi ñun ñëpp moo moom la suñu téléphone ay sone te bañ demee Tiwaawan yaa ko ne wayal ko soxna jaara kon yow sa cofeel ci moom ak sa bëgg ci moom lu àdduna bépp xam ko soxna si nee na lépp lu mu ne saabu bu gersoo yow lay njëkk a gis gi lii lii bàyyi faal naan bu doon badar dañuy jeex waaye yow bu soxna baali woote woon xare sëñ Bassirou Khary boobu mooy général mag yi mooy taxaw ca kanam waaye baat bi sëñ Sylla wax na daa firi lépp bu taxawee fii xool fii ni mu mel taxaw ni sama sama doom a def lii soxna Bali nee na loolu moom doy na ko sëkk nee na Mbàkke doom ju ñuy tiitaroo nga doom ju ñuy safoo nga doom ju ñuy ndamoo nga nee na doom ju am jom nga doom ju xam sa bopp nga waaye nee na nag sëñ Muntaxa mi fii sëñ Tubaa nag dalaa seereel sa pëstéef seeral la sax jàmbaar ba tuddee la jàmbaari sëñ Touba lool yi nag soxna si nee na kon moom leneen lu mu ca def rek day da koy sof waaye nag tubaab danaan engagement singulier dafa am kon moom day jël yeneen yoo xam ni moom c'est des relations particulières c'est des choses singulières yoo xam ni sa diggante la ak moom nga jàpp ko lool téye ko lool téewug biir nee na kon bis bi Mbàkke bu sañoon kuy ñëw fi la koy fekk kuy dem fi la koy bàyyi bu nu jàppee bis bi ne ne mois de novembre nee na bu desoon ci moom rek mois de mai lay tàmbali saaboo xëyee gis ko saaboo boo xëyee jàkkaarloog moom nee na nag mi ngi seereel ñëpp ni Serigne Bassirou Khadim aw bii awa ba mii nee na ni perkaal mel soxna Baali nee na noonu la xolam di mel nee na mi koy seereel ñëpp nee na borom xol bu laab la nee na borom xol bu sell la nee na nit ku tedd la te nee na nit ku yiw la nee na waaye Serigne Bassirou Khadim awa ba nag ku mën nitam la. soxna Baali nee na yow da mën sa nit képp kuy sa nit dañuy xam ni kii sa nit la te lépp lu xew ci sa nit yow da ngay taxaw kon soxna si nee na sant na la bu baax gërëm na la bu baax li nga xam ni daal yéene na la ko te nee na leer na ko ni mënalu ko boppam waaye sëñ tubaa sama maam mën na ko nee na mi ngi koy ñaan sëñ tubaa yal na la ko defal yal na la yàlla yokk yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yàlla dolli sa gudd fan yàlla dolli sa wér mu ab jullit nga te ab murit nga lii nga xam nag moom ngay def di ko defal baayam bii nee na mel na ni sëñ sooy bi nga ko defal sëñ Abdou Lahad nga ko defal sëriñ Saliou nga ko defal sëriñ fallu nga ko defal ndax doomi sëñ tubaa moom koo ci jël rek muy doomi sëñ tubaa man dama naan daraja ji gën a rëy ci àdduna neel doomi sëñ tubaa bu la nee jan daraja la am nga nee doon doomi sëñ tubaa ndax am na mag mu ma ne ku dul sëñ tubaa rek am nga doom joo xam ne boo soñoon yow doo doon baayam moom rek la yàlla defal loolu Cheikh Modou Moustapha ba ci Cheikh Moutala ñëpp jub fukki doom ak ñaar amul kenn kuñ naan bu dul woon nangam wala nangam wala kii sikk sàngam ñëpp mel nii loolu sëriñ bi rek moom rek la ko yàlla defal te kenn fekk su ko kenn dabu ko ci moo tax dane woon ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko maa nekk fépp ne ci ñëpp te kenn nekkul ci man ni fi waay mel maa tax te kenn taxul ma mel ni ma mel te ñi ma topp ñëpp bu doon liñ ma topp ñoom ñëpp sawara lañ jëm kooku mooy sunu sëriñ soxna si nee na sëriñ boobu la lay bàyyee li mu yéene ci yow ak li ci bëgg sëriñ boobu moo ko man te yàlla na la ko defal soxna baali ma lay seereel ni sëriñ jiili mii xam naa ni sax moom loolu fàtte na ko keroog bi sëñ galas mu sëriñ Modou Bousso Dieng nga wàccee liggéey danoo toog di waxtaan nga ni ma sëñ Muntaxa mii àddina ji nga ne ma ma nga ne ma bam bam ba pare doonagul sëñ yaa ma ko wax nga ne ma nag li ko fii tax a yàgg loolu du ci moom ci ci ñun la ma ne la nu mu nekkee ci ñun nga ne ma bu nu fexee ba lépp lu mu bëgg nu koy def saa bu nu xëyee dana nu jàkkaarloog moom loolu nag ab ab la yaa ma ko wax de nga ne ma nga ne ma ak yàggam mi ngi ci nun ndax moom àdduna laata muy doon Sëñ Tuubaa la ci noppi waaye bu nu fexee ba lim ñuy digal ak lim bëgg ci ñun ñu di ko def saa bu nu xëyee di ko gis loolu nag ab soñña la ba képp kuy muur te yaakaar sëñ tubaa nga déggee ko noonu li nekk ba tax ñu am lu mel nii njariñ moo tax ñu am ko mu ne képp ku fekk koo xam ne dafa am ay jafe-jafe am bor wala bëgg da dépense man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi yàlla su ma dana ko yow fi dunya wal axira waaye bi caag yëmut foofu xadis daa waxaat sax foofu nag wala mbir mi nekk ndax taxawaay boobu la moom laa gis Cheikh Basir wallahu fi awni al abdi maadaama al abdu fi awni axihi gis nga ñu bari sax des fois dañuy jox jox jox waaye man li ma gis si Amadou Bassirou mu koy taxaw man moom laay seere mooy nit ku am jafe-jafe lay bañ a gis jafe-jafe adduna moo xam loolu lijjanti wala lu jafe la wala nga nekk koo xam dañ laa bëgg a doole wala nga koo koo xam ne danga am ay jafe ci wàllu yoon wala lu mënti doon loolu mooy awnu boobu mooy ndimbal googu lay taxawee gis nga yéen a wax naan dafa dafa leble maanaam boo daa lebal nit ñi ñu bari dañuy jàpp ne mooy yëkkati alal di ko joxe waaye am na ñoo xam leb leen lebal moo ëpp alal jëñ am alal jëñ am dimbal gum leen dimbal ak taxaw gum leen taxaw ci lañ jaare am ay milliards ndax dama xam ñi ñi ko jege ak ñi nga xam ne ñoom lay nekkal te ñoo ñuy ay boromi alal du yëkkati xaalis de mais da na taxaw assisté leen taxaw gaay koo xam ne bu ñu dugaloo loxoom suux mën naa am mu taxaw leen fu mel noonu moo tax kooku nag yàlla nee na man yàlla du ma dëñ mukk Mouhamed Sida ndeysaan mi ngi seet rek moom ku baax la loolu mooy ndimbali ñu bari bu ñëw naan leble daa leble daa jox de foofu la taxawee do man mbindeef yi ñun gis ñëpp ngeen leen dégg ay borom ak alal ak ak ñaañ ak ñëpp foofu la leen taxawee sokkul la boo xam daa taxaw seen digganteeg lañ doon wut. nee na ñun ñoo am occasion. ngir li li liñ koy defal. ne feeñ. waaye moom li mu ñuy defal. amul sens mu na amul sens loolu mën a feeñ. ndax ci biir biir ndax loolu ci biiri bureau la. ak ci biiri saalam. saalam. nee na mën naa wax ni nee na su fekkonte ni lim ma defal ren lim ma defal ren nee na waxuma at yi weesu nee na lim ma dekanteel ci man nee na bu ko laajoon commission 5 pour cent nee na ameel na la 500 millions nee na te musu koo jox benn dërëm nee na nee na man nag wallaahi wal quraanul asiim nee na ak loo ma jege jege jege lu ma la bëgg bëgg bëgg. nee lu mbooloo bari bari rus naa waxal nit lu dul dëgg nee na dara jëralu ma ko damay dund damay lekk damay naan di faj samay soxla nee na dawal oto bu rafet am kër gu ma dëkke nee na te yàlla samay at bariwul nee na kon tey li ma yàlla war a fayee nee na li ma war a fayee yàlla mooy nee na tegu ci njub nee na ak di wax dëgg damay wax ni soxna Bali nee na man Mouhamed Sylla xam gi ma ko xam ak sekk gi ma sekk ak moom nee na bu du woon doomi seen son yi bu nee nee na cofeel gi ma am ci moom dara du ci wàññeeku nee na léegi léeg nag damay am naqar ci jataay nee na ndax dañuy fàtte ni ñun ay murit lañ kii doomi seen son yi bu la nee na lu wax ji bëri bëri bëri kenn mënta tagg soxna baali nee na ba weesule ko jàmbaari sëñ Muntaxa doomi sëriñ ni son yi bu nee na leneen na lu ñu ko waxal nee na lii ko gën a diis nee na moo tax nañuy bàyyi xel ne fii nu bokk nun ak ñun ñooy kan lu mu mën a doon rek nañuy fàttaliku ni cërub euh, euh, sëriñ tubaab bi lu ci nit am euh, ba mu rëy xamal ni yow tuuti nga ci lay seereel ni ni nga mel ci man li ngay dox ak man nee na Mbàkke xam nga ko bu baax noonu la sëñ Maxtaar mi mel ak man nee na su ma ko woon léegi ne ko bërëb sàngam dama fa am nàngam te diw dégg naa yenn sa xarit la danaan la waxtu sàngam ñëwal jël si ma man képp man képp Sénégal la laa mës a gis dugal ko ci bureau yu bari nee na ngir sama soxla nee na te wallaahi kenn du ko déggaat nee na te askor nag nee na joxe xaalis du fay nee na reconnaissance mooy fay. Serigne Bassirou Serigne Soy bu mu baax mi waajuru soxna Baali mi toog daf ni baax du maye yëre du maye oto du maye xaalis ñu ne ko Mbàkke baax la ne mu ni baax kóolóore la. soo amee colère baax nga boo ko ñàkkee safaan ba nga booy wër gore di da ngay dem kër fàtte kuy fàtte gore woo waxtu wi ñu toll ak fii ñu nekk nga fàttaliku sama waajur alaaj jaaja mbay wax fi mu daan taxaw 2004 maa ngi mooma daan ànd xale bu tuut laa woon wax nga dëkk première édition huit ministres de la république Macky Sall mii tey ministre de l'intérieur loolu mi ngi fi woon ak Djibo Leyti Ka jamonoy Ablaye Wade 16 olof ni lu yàgg dëgg la ku amul fit munu ko ku gorewul munu ko ku yàkkamti munu ko kuy profité munu ko bis bi li ñu ciy def Mbàkke amoo ko ci bu doon da am loo ci wut di nga def invitation boole kook soutien boole kook parrainage saa boo xëyee télé bi buuf sak abaak ñëpp di publicité di wax ñun ko tuddee amul ci sëriñ bi nga tàmbalee ci sëriñ bi nga yem boole kook def ci sa poste ba mu jeex def ci sa doole ba mu jeex def ci say nelaw ba mu jeex wëlbatiku di jàpp ay 16 ak i place naan tegal ma fii sa maam sëriñ baara nga koy defal waaye nag da xam ni danga yor sa paanum ndox di ko sotti ci géej fas yéene séddoog borom ndax sëriñ Bara toll noonu ci Serigne Touba Seydou da nga ni soxna Bali kenn du yow kenn du moom dinaa wax juróom ci yu ci xam yoo xamante ni si faat na keneen dootu ko am te am na ko te keneen dootu ko am moo tax du kenn mooy doomi Serigne sooyu mu bàyyi la ko Serigne Saliou jox ko soxna may mu yar ko muy ñetti Serigne Touba ci moom wëlbatiku ñu jox ko Serigne Mountakha mu nekk fa ak ngor ak jom ba Serigne Touba fekkat ko fa muy ñeenti Serigne Touba ci yow juróomeel bi mooy nga doon doon soxna jaara Bousso amula yow donc waaye bu ne soxna baara soxna jaar ñëpp ñu soxna baali bu nee poroxaan ñëpp ñu soxna baali kii mooy gay lekk sëriñ baara waaye yaay gay lekk soxna soxna jaara beneen nag bi ci dolleeku mooy xare dafa xew yi xeex xew yi nanguy dëkk ak dàqante xew yi baatin kenn waneetu ko ñett xew wax lu baax dox lu baax jëf lu baax yéen ñaar ñi kenn mënu leen ci bëgg nag nekkul ci xef nekkul ci peru bët ku Serigne Touba tax nga bëgg ko da nga koy bëgg ndax Serigne Touba saa boo ko gisee siyaar ko boo ko gisul ko ñaanal suñu borom soxna baali sagub yoon bi nga mi ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi bàjjanam xaritam wóllëreem soxna si sa doom Serigne Bassirou nee na moo ngi lay ñaan bala tàmbali kàddoom mu nuyu Serigne Abdou Khadir Mbacke mii ziyaare ko di nuyu Serigne Ibou Seyni Laay di nuyu Serigne Modou Boussa Dendey Serigne Abdou mu sëñ Cheikhouna Abdou di nuyu Serigne Cheikh Serigne maam Cheikh Mbacke AIS Serigne Cheikh Abdou moom Serigne Modou Boussa Dieng Imam Sall Modou Mamou Niang Serigne Silla Baye Fall Modou Habib Diouf Khadim Amar Serigne Bassirou moom Serigne Modou Makhtar Serigne Bassirou moom Serigne Modou Makhtar ak Serigne Mbacké di doomam ak Serigne Mamor Dendey ak Serigne Soyibu sëriñ Abo Serigne Abo waaye di beral nuyoo ak ziar waaye di beral nuyoo ak ziar course sociale course sociale Serigne Makhtar Diène bi mu ñëwee bi mu ñëwee ma wax ko ko yaa ngi ñëw mu wax ko ni ko soxna saa ngi ñëw. am na kilifa gu ko doon seet ñëw na ba ci buntu foire bi. am na kilifa gu ko doon seet ñëw na ba ci buntu foire bi. ñu waroon a ànd fu am fu nu dem. ñu waroon a ànd am fu nu dem. xam naa dafa am code yu mu ko waroon a jox. xam naa ni Serigne Matar dafa am code yu mu ko waroon a jox. waaye bi ma nekk soxna saa ngi ñëw. waaye bi mu ko nee soxna saa ngi ñëw. dane ma du ma dem dama koy xaar. dane ko du dem dama koy xaar. loolu lépp day wane sa cofeel ci moom. loolu lépp day wane cofeelam ci soxna si. bëgg gi mu ko bëgg. bëgg gi mu bëgg. ak fonk ak fonk gi ko fonk. nga nekk nit ku baax. Hmm? sëriñ Matar sëriñ bi nee nga nekk nit ku baax. situation. nee na situation. du la perturber. du la perturber. wala émotion. wala émotion. jàpp la jàpp la. ba nga génn gàmm. ba nga génn gàmm. nga nekk nit ku baax. nee na nga nekk nit ku baax. ku bëgg lu baax ku lay ziare kon mi ngi lay ziare bu baax. Mouhamed. Mouhamed si la. yow yaa baax. sëriñ bi nee na yow yaa baax. wax. li nga fi wax ku baaxul ku baaxul xolam setul xolam setul laabul laabul bëggul lu baax bëggul lu baax mënu koo wax mënu koo wax sa teraanga sa teraanga ci njabootuk sëriñ Touba ci njabootuk Serigne Touba ñi ko mën a waat bariwul ñi ko mën a waat bariwul xanaa ku la xam xanaa xamul waaye koo mas a nuyool waaye koo mas a nuyool jox ko loxo jox ko loxo xam na sa teraanga. te loolu jëmmi Serigne Touba rek a tax. te loolu jëmmi Serigne tubaa rek a tax. xoolal fi nga toog. nee na xoolal fi nga toog. li la yàlla dénk. li la yàlla dénk. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne bu tegewoon seen loxo. bu tege woon seen loxo. dañuy bangi bangi. dañuy bangi bangi. foofu kilifa yii def leen morom. foofu kilifa yii def leen moroom bu nu waxee benn. bu nu waxee benn. ñu ni ñaar. ñu ni ñaar. ak seen i tànk. ak seeni i tànk. lu waay wax. lu waaye wax. ñu dugg ci. boo nee soxna si mooy sa ndey. boo nee soxna si mooy sa ndey. gëm ko. nee na moom gëm na ko. ku mu doon sa ndey. ndax ku doon sa ndey. nga koy dund. nga koy dund. nii rek nga mën a mel. nii rek nga mën a mel. yar ak teggin. yar ak teggin. kon soxna si maa ngi sàkku nga ñaanal sa doom ji. kon soxna si Serigne Bassirou nee na ngi sàkku nga ñaanal sa doom ji di Mouhamed Sylla. yàlla defal ko jàmm. yàlla defal ko jàmm. dolli ay xéewalam. ay xéewalam. di nuyu ñi nga àndal. di nuyu ñi nga àndal. nee na bu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo soxna Fatou Guewel Diouf. muy ku yàlla baaxal. muy nit ku yàlla baaxal. lépp lu ma xewle. lépp lu mu xew xewle. teraangaam dina fi ñëw. teraangaam dina fi ñëw. te man ma suma ko defal teraanga. te Serigne Bassirou nee na moom mun musta defal Fatou Guewel teraanga. te loolu lépp. te loolu lépp. sa jëmm tax jëmmi soxna Baale rek a tax mu koy def. kon Mbacke Ball. kon Mbacke Ball. bu fabee nuyoo. bu fabee nuyoo. teg ko ci loxol Mamour. teg ko ci loxol Serigne Mamour Lo. mu jàllale la ko ci njaboot gi yëpp. la ko ko ci njaboot gi yëpp Mbacke man awma sa fay. Mbacke Serigne Bassirou nee na amul sa fay. xam naa fi nga jóge xam na fi nga jógee. xam naa li nga bàyyi ci gannaaw. xam na li nga bàyyi ci ginnaaw. waxtu wii nga jóg. nee na waxtu wii nga jóg. ku la saful. ku la la ñoru la. faale woo ko faale woo ko. bàyyi woo ko xel doo ko jógal waxtu doo ko wi. ndax xam naa ne am nga ngànt. ndax xam na ni am nga ngànt. waaye yow da ngaa mën waaye nee na yow Mbacke da ngaa mën sa nit. te jamono bi nag. te jamono bi nag. sàggan ku sàggan ban ni la mënoo sa nit ban ni la mënoo sa nit ñàkk nga lu bari ñàkk nga lu baree bari ndax ku bëgg lu baax ndax ku bëgg lu baax te jëm fenn te jëm fenn bu xamee ni mënoo sa nit bu xamee ni mënoo sa nit lay doyee lu lay doyee mbàkke yow sa doom ji nee na danga mën sa nit xam teraanga xam teraanga bëgg lu baax bëgg lu baax mën a sonn ci nit mën a sonn ci nit yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp jàmm mbokk yi nga bokkal Serigne Touba. nee na sa mbokk yi nga bokkal Serigne Touba. ñuy say càmmiñ. ñuy say càmmiñ. ñii di say mag. ñii di say mag. ñii di say rak. ñii di say rak. góor ak jigéen. góor ak jigéen. yéene ji nga am ci ñoom. yéene ji nga am ci ñoom. yiw wi nga leen ëmbal. yiw wi nga leen ëmbal. jéggi na dayoo. Serigne Modou Moustapha sa waajur wa nag. sëriñ Serigne Modou Moustapha sa waajur wa nag. daan na wax ni. daan na wax ni. yéene ñëpp jàmm. yéeneel ñëpp jàmm. lu jàmm. du tax ñëpp am jàmm. waaye yow mi ko yéene. waaye yow mi ko yéene. ñëpp ñëpp. yàlla dina la defal yàlla dina la defal jàmm. yow jàmm nee na yow Mbàkke jàmm rek ngay am. te da fi yàgg. te da nga fi yàgg. ndax wa ammaa naasa. fa yankusu. fa yankusu. fil ardi fil amal nit ñi njariñ. ku amal nit ñi njariñ. da nga fi yàgg. da nga fi yàgg. te ñi njariñ. te nee na yow Mbàkke amal nga nit ñi njariñ. taxawaay bi nga am. nee na taxawaay bi nga am. ci Serigne Mountakha. ci Serigne Mountakha defoo ko càmmiñ defoo ko càmmiñ defoo ko sëriñ defoo ko sëriñ da nga koo def wasiila da nga koo def wasiila mu doon sa jëwriñ mu doon sa jëwriñ nga koy liggéeyal nga koy liggéeyal ci lu nëbbu ci lu nëbbu ak lu feeñ ak lu feeñ sëriñ bi dama fa dem ànd ak Mamour mii nee na dafa dem ci sëriñ Mountakha ànd ak sëriñ Mamour Lo mii waxtaan ak moom ba pare waxtaan ak sëriñ bi ba noppi ni ko soxna Baali na nga ko ñaanal mu gudd fan. mu ne ko sàllaaw ndax jàmbaar ne ko sàllaaw ndax jàmbaar la. sama ci samay ndigal. ni ko ci samay ndigal. ci lay nekk guddi. ci lay nekk guddi. ci lay nekk bëccëg. ci nekk bëccëg. lu mu xam ni sama bëgg la. lu mu xam ni sama bëgguk sëriñ Mountakha la. du xaar mu wax ko. sëriñ bi nee na du xaar mu wax ko. loolu nag Mbàkke. nee na loolu nag Mbàkke. moo taxoon sëriñ Sooy bu jël la jox la ko. jamono ba nga fay nekk. nee na jamono ba nga fay nekk. ci sunuy nopp. ci ci sunuy nopp. jamono melul nii. nee na booba jamono melul nii. nga toog nga toog. muñ muñ. liggéeyal ko liggéeyal ko. tarbiyo ko tarbiyo ko. ba lépp ñëw. nit. nit fu mu nekk. fu mu nekk te nangu faa muñ. te nangu faa muñ. nangu faa sonn. nangu faa sonn. nangu faa xaar dara. nangu faa xaar dara. dara du ko fekk ko fa fekk. waaye bi lépp ñëwee ci sa loxo. waaye bi lépp ñëwee ci sa loxo. soppeekuwoo soppeekuwoo changé woo changé woo soppiwoo jukko soppiwoo ay xarit soppiwoo ay xarit soppiwoo àndandoo soppiwoo ay àndandoo soppiwoo ay doom soppiwoo ay doom am na ñoo xam ni ndax am na ñoo xam ni bu leen teraanga dabee bu leen teraanga dabee wala xéewal wala xéewal ñu doom ñu soppi doom soppi taalibe soppi taalibe soppi xarit soppi xarit soppi ay àndandoo yow sa doom ji nee na Mbàkke yow loolu dalul say mbokk say mbokk xeeboo leen. boo dajanteeg ñoom. nee na boo dajanteeg say mbokk. ngay wàcce sa bopp. da ngay wàcce sa bopp. bëggal leen a suufee bëggal leen a suufee. ndax bëggoo. ndax bëggoo. ñuy xëy na am benn arrière pensée. ndax bëggoo ñuy am benn arrière pensée. ci yow ci yow. ni la yàlla def ni la yàlla def. ni yàlla def nag. ni yàlla def nag. yàlla la soob. yàlla la soob. mu def la mu def la ko. tàgguwul ma Samba. tàgguwul ma Samba. tàgguwul ma Demba. mi nga xam ni. yàlla mi nga xam ni. moo wax ni moo wax ni war a faanaa baadum fawqa baadin darajaati maay fab ñii maay fab ñii yëkkati leen yëkkati leen jox leen adduna jox leen adduna jox leen tawxiid jox leen tawxiid jox leen ngëm yàlla jox leen ngëm yàlla jox leen dëggal jox leen dëggal jox leen tegu ci siraatal mustaqim jox leen tegu ci siraatal mustaqim yàlla moom moo la ko def yàlla moomu moo la ko defal Mbàkke yàlla na kon Mbàkke yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla na yàlla gën a wéral yàlla la yàlla gën a wéral yàlla taxaw. yàlla na la yàlla taxaw. say doom lañ. nee na moom sa doom la. say taalibe lañ. nee na sa taalibe la. say soppe lañ. sa soppe la. loo bëgg. loo bëgg. loolu lañ bëgg. loolu la bëgg. loo xool. loo xool. moom lañ xool. nee na moom lay xool. loo bëggul. nee na loo bëggul. bëgguñu ko. nee na bëggu ko. danañ ko sori. dana ko sori. di ko daw. di ko daw. ni ñuy dawee. ni ñuy dawee. loo ragal. loo ragal. jërëjëf Mbacke Mbacke. nee na xolam seet na guy. nee na loolu rek booy lim ci doon sànni. nee na moo fees. nee na xam na ni bu continuer du baax. yàlla na la yàlla defal jàmm. nee na bég na lool. sant na la lool. gërëm na la lool. ci turu Serigne Djili. ci turu Serigne Maam Cheikh Mbacke. comité de pilotage journée culturelle Serigne Bara. nee na comi ci turu comité de pilotage journée culturelle Serigne Bara. ci turu mbokk yi fi daje yëpp. ci turu mbokk yi fi daje yëpp. ci turu communicateur traditionnel yi. turu ñu yor yi filmé. ci ci turu ñu yor téléphone yi sinap muy sinapeur yi. ak mbooleem ñi fi daje ñëpp. ak nee na loolu rek moo doon kàddu yi. nga ñaanal ko. nga ñaanal ko. ñu yeewi la. ñu yeewi la. nga delluwaat ci yitte yi. nee na xolam sedd na guy. yàlla na yàlla defal la jàmm. yàlla na la yàlla sàmm. jërëjëf Mbacke